xam nga ko gis nga ko mu bëre ba tàyyi Jackson mais ci Pape Ndoye bu Fass la mujje kere da ko dóor kaw defe naa yaa ngoon arène nas yaa ngoon Ibamar ñu jëm ci combat naar ne na daa côté combat bi Jackson ne dinaa côté côté waaw loolu lu leer la parce que Jackson doole fi mu toll Jackson ëpp doole waaw moo doole mais daal sala san comme te mër mu mag la xam ne mu war a mën a bëre mais booy bi moo ëpp doole booy bi mooy xale ah. waaw waaw mooy xale mais kële nag saay-saay waaw naaru saay-saay la ba léegi kii moo ëpp condition moo ëpp doole léegi looy moytu loo bi ci kaw naaru waaw dama ko bëgg bu tey rek am lu mu bëgg. waaw mu tey rek waaw mu tey rek tey ko bàyyi koog làmb ji. ñaanu séeraas da koy bàyyi ak làmb ji rek bëri a jël coup na. waaw waaw ko parce que xale bi saay saay la. day dóor gauche ay day def déplacement moo tax bu garaaw bu garaaw la. waaw dafa garaaw dafa mën a xeex ko dafa mën a faay. booy bu làqatu bu noppi. waaw waaw dafa làqatu na pat. mais booy bu am doon ko muy gën lu bëri de. déedéet lu jël lu bëri waaw franchement loolu lu muy loolu lu muy wane ci mbër mbër mu làqutu te saa yu ñooy def différence. waaw parce que xam lu tax kenn du la xamal dara kenn du xam loo mënee ba pare day entraîner entraînement a part moo xam ne entraînement du entraînement équilibre kon donc léegi loolu loolu foog mu nekk nga xam na ka tey dina mën a bëre moo waral lii bu ñëwee day am confiance waaw moo waral mu aan teg gisoo ko dafa am doole de. loolu mu daanu xaju ci. ah waaw waaw mooy peesa bu la. naaru sooga di wër sotti na ko ba mu jeex dilit bi nag boo xoolee daa jël mbuus bu zone dugal ko ca biir dilit ba wala boo jël dilit ba dugal ko ca biir mbuus ba sànni na ko ca géew ba naaru soogaas mbër la moo xam ne nag Habib yàgg naa këpp yalwaane xale ma wax la ko tey xam naa yow est-ce li nga ñëw làmb bëri na <laughs> ah Habib man waaw non non man léegi laa ñëw làmb mais yow fële nga dëkk sa jiloor nga dëkk wala ah. foo dëkk si dëkku séeréer yi. kon Passy waaw kon yow war xam lam xam naa lam bu baax. am nga mbër. man waaw. non non amoo mbër. amoo koy supporté ci lamb ji. man man mooy mbër. Eumeu mooy sa mbër. loolu la yàlla def waaw. ah. Mhm. loolu la wax ne Eumeu Sène ay mbëram. waaye naaru soogaas moom mu nga ne ca géew ba. mu ngay sumi daal la ya loolooy sumi daal naaroo ngay sumi ay padam njaxeenam ay dàllam wala ay tëranikam Jackson a nga ne seen muy ñëw Jackson a ngoongu xale bi pare na daa mel ni de liggéey na de Habib kii liggéey na de xale bi Jackson a ngoongu am na lu muy laaj am na luñ ko andil yëkkati saaku ba mu nga day ñaan pour dugg ca géew ba mu ngay ñaan moom Jackson pour dugg ca géew ba ay Jackson bu géej waaye ay naar soogaas bu ginnaaw raay waaye naaru li ma jaaxal naaru feccu toog daal la def jàpp njàmburam cay bii combat lamb dëgg ngi maa lay bëggee sitta ci loone borom lambu diaspora Siteu doomu ndeyu tël kenn du yow ñaari mbër yaa ngoo nga xool nga leen ah am na lu ko Jackson di joxoñ ñaar ñett jëloo ko ginnaaw jëlee nañ ko ginnaaw cey làmb làmb ngi ju war a neex ju nar a neexi tak nag xalaat naa ko bu ñu bëree Jackson a ngay dem ca moom Jackson fu mu jëm ca kaw naaru ba tey am na lu mu koy joxoñ delloo joxe ginnaaw naaru sotte koo butel jàkkaarloog moom cey làmb Habib ndaysaan Habib tey la dimanche 14 novembre 2021 Jackson Senior bu way moo wan ginnaaw ak naaru sogas bu Pikine avertissement benn Jackson jël na avertissement taxaw na der jiital pied gauche arbitre soufflé na naar a ngi ne tekk di ko xool e naar wàcc na moom it pied gauche pied droite tey naaru pied droite la teg comme nam ko daan jege Jackson a ngi avancé ci kawam naaru dàq na koog droite waaye Jackson a ngi dox rek Jackson a ngi dox rek da koo bëgg accéléré Jackson da koo bëgg a naar foo jëm naar Sogas foo jëm Jackson a ngi koy accéléré waaye taxawaat na de naaru dey mag la moo xam ne nii da ko yóbbu bàyyi ko xel gis nga xam na li muy bëre mën na ko yàgg naa tur yàlla waa ni xale ku weddi laajal caat ak seen ñaari tali seen digganteeg naaru Sogas. bu duggee ci combat bi te naaru doy waar gisuma ko mu tuus waaw waaw ku may chiffre maa ngi lay bëggee ku mel ni seex lambaay borom fital mbaadaan seex mu fisal mbaadaan lambaay mu peter seen ak jib seen waa jib seen bam ñoo ñëpp ñu ngi peter seen maa ngi leen di bege xeex na mu jël ko eh xale ba jël na ko moytul laa ilaha illallah jeexagul de gis nga naaru yaa gis naaru xale ba nga koy pompé yokku na ko bañ Jackson te nga bañat bu ko jéem a jaay doole daan na ko moo ko ëpp doole da ko ëpp doole da ko ëpp doole xoolal supporter da ko ëpp doole bëre xale bëre doole bëre xale a ah way ma Jackson ak waa këram e way waa géejo mbooloo ari Jackson def na affaire eh waay Habib sambaari mu naan tës tës waa mais Jackson. ci loolu. sant yàlla am na jàmm baax. bi noo ko bëree nga dikkaat ci combat bi. waaw lu ko bëree si yàlla ak gëm-gëm. noo gëm suñu boobu. yow yàgg naa la nga wax man du ma sonn reporter du ma tardel ay amateur. Eh. ma sonn amateur du man damay vite fait rek. léegi foo jëm. waaw ci bongali rek. abar c'est ñu wax. c'est bon kon mbokk yi ñu doon topp ci Equivox TV tey di dimanche 14 novembre li moo amoon ci arène nationale. mbokk yi ñu doon topp ci Equivox TV tey dimanche 14 novembre li moo amoon arène nationale Jackson bu Guédiawaye ak Naaru Sogas ñoom ñaar doon bëre mu doon xale ak mag waaye boo xoolee xale gi ak mag gi feeñ na ci combat bi ndax boo xoolee Jackson bi mu dawee jëli Naaru Sogas da ko jàpp bëre ak moom. jéemu la xeex ak moom bëre la ko andil bëre ak moom naar jëm na ko bañ waaye xale bi wan na ko ne wax dëgg yàlla maa gën a nekk ndaw maa ëpp doole et puis daan na ko ñu koy féliciter moom Jackson te encourager naaru parce que naaru la mag la moo xam ne vraiment ku jar a jox cër la parce que tam mu ngi may xale yi seen sens ku ñëw si sir ko jàll ku mënta jàll mu kale la waaye Jackson moom jàll na félicitation à Jackson di féliciter waa Guédiawaye mbooloo yëpp di nuyu képp ku ñu ñëpp jàmm mais di wax rawatina Cheikh Lambaye borom Fisel Mbadaan ak Jib Sène yéen ñëpp maa ngi leen bëggee ñoom Abdou Sakho ma Babacar bu Moon Lama ñoom Mor Diouf yéen ñëpp bëggee naa leen gars yi nekk foofu Petersen su ma limee dinaa juum yàlla seen jàmm yàgg di nuyu waa diaspora bi tamit mënu leen fàtte ñoom Adama Ndiaye Awa Diop Touba tam maa ngi koy bëggee Habib di la bëggee yow mi nekkoon ci caméra bi di wax ka ni kon bàyyi leen xel incha allahu rabbi weekend bi nu jëm lamb ju neex day amaat Jamaïcain mooy tëgg Pape Ndoye ak ki nga xam ne mooy Abou Niassé Iba Mar nag làmb jooju yu amee muy làmb ju nar a neex Cheikh Super Jamono Mamor les Tigres gars yi ba beneen yoon Père Thiam Sensé bëgg naa la